yaisuha bika wa surriyatiha min aseytaan rajim rabbi ausu bika min hamasati sayatin wa ausu bika rabbi an yahduruni alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man ittabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin amin bokki jullit yi toog ci jataay bi rawatina yéen bokk yi nu bokkal seexul xadim radiallahu anhu noo ngi jiital ak sant sunu borom subhanahu wa ci sunu jataay bi gannaaw bu ñu ko ñaanee moom suñ borom mi am kàttan te man ngir mu musal nu ci yàqaakon bii di iblis noo ngi koy sant tey julli ci ab yonentoom di xayrul wara Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di ñaan al xalifatul am al sayidi Cheikh Muhammadul Muntaqa ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi lool te wiral ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal a sayqinal qadiimi maamam suñ boroom may ko kàttan gum ko defee tañ ànd ko ak moom di ñaan euh, ki nga xam ne waxtu wi daaw wala lu ko jege woon tuuti mi ngi fi woon wuutu woon fi Cheikh Mamadou Amine Baara wuutu woon fi Serigne Touba muy Cheikh Sidil Mokhtar suñ borom dolli na ko fayal yokkal nu ay leeram yàlla yi dolli noo fayal sëriñ Touba Xaadimal mustafa di yëkkati ay kàddu yu nuyoo njëkkee ko ci sunu sangi jataay bi di ci jiital ki nga xam ne mooy sunu imaam di sunu sëriñ di sunu lépp sëriñ Touba boole noog moom mu ànd ak ñun liggéey bi muy al sëriñ bu soobee di ko ziar bu baax kon bu ñu nuyoo al sëriñ bu soobee di ñaan suñ borom yàggal ko fi mu yàgg fi loolu te ndax ak yàggam ci réew mi njariñal lislaam la waaye njariñal yoonu murit la te suñu njariñ la ñun ñëpp cër bi ko suñ borom dénk dinaa koy wax mbooloo mi daanaka dese nañ koo xam importance bi mu am ci réew mi mbooloo mi dese nañ koo xam waa réew mi loolu nag maa ngi leen ciy ñaax ku fi murit nga bàyyi ko xel jox ko cër bi ko suñ borom jox imaam lu kawe la ci bépp domaine boo dem la wax wax aima muy ka jiite euh, secteur boobu ku ñu war a wormaal la su ngeen demee ci seen barabu liggéeyukaay yi ña ñuy woowee seeni patron te ngeen séq ak ñoom wàllu àdduna am ngeen respect bu mat sëkk bu ngeen denc seen diggante ñoom à cause wut alali àdduna ak àdduna loo xam ne fi nga koy bàyyi kon imaam ci diine ku ñu war a jox cir bu kawe la ci fànn yépp nag bu ngeen demee Saoudiya muy fi yonent bi sallallahu alayhi cosaanoo ña fay doon ay imaam bokk nañ ci ña gën a riis ci réew ma parce que waa réew mi ñuy wuyoo lislaam xam nañ responsabilité bi ñu gàddu ñoom masuliye bi leen di xaar lépp lu baax lu ñuy xaar ci diine ñoom la ñuy jiital ba dañ leen di daggal salaire ñu boole di am salaire bu baax ba pare di am tiyaabo ci seen diggante seen borom loolu laa ko doon ibbee di nuyu Cheikh Mamadou Muxtaar mii fi toog di sëtu boroom gaawaan ak Cheikh Mamadou Bachir mi fi jógee léegi ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Fallu Soyibu ak ñeen mboolem ñi ci jataay bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dogal ngant yi kaddu yi lépp lu ci dul noona rek ngeen xam ne kii wax am xelam matewu ko xam-xam bi matewu ko ay atam matewu ko dogalub yàlla la rek ak mbaaxu sëriñ bi mu bëgg ñu def ko ñu def ko waaye du sunu coobare tey jataay bi kiñ fi war a ngir waxtaane ko waxtaan woo dañ ko séddale ci ñaari anam bi si njëkk mooy ki sabab sunu dajee fii muy Cheikh Mamadou Amine Baara ñu nafar tuuti ci dundam nafar ci tuuti ndax Cheikh Mamadou Amine xam ngeen ne kenn la ci leeri borom Touba te doomi siñ Touba day jafee waxtaane ci wet neexa a waxtaane ci wet neex a waxtaane gi mooy loo gàtt loo mën a wax di nga xam loo wax ci moom naqaree waxtaan gi nag mooy loo mën a mën a mën a wax di am loo bàyyi ci moom ndax nitug yàlla moo bindoo noonu di ko ñaareel mooy ñaareelu waxtaan bi tomb bi ñu koy tëjee mooy sëriñ tubaa ci boppam sunu diggante ak moom ana sëriñ tubaa bàyyi xel gi ñu ko war a mën a bàyyi xel ba tax ñu war a mën a yokk suñ pas-pas ci sëriñ bi ñaareel bi it mooy ak taalibe moo di lan ab taalibe lan moo di ak taalibe ndax ak taalibe mooy xëfër xëfër rek ci yoon wi nu ko neex noo ko yëgee ak noo ko bëgg a dundee dundee ko ni wala ndax ak taalibe mooy tënku ci li sëñ Tuubaa rëdd léegi nag nga xalaat lan moo ci gën a yanu maana ak lan moo ci ak dëgg Cheikh Amadou Amine doomi Serigne Touba la fees dell joo xam ne da di gis ci saahir ne dafa bëri ay jagle yu mu am ci diggam ak Serigne Touba yoo xam ne ay paggu téef la yu ko Serigne Touba faggul waaye yu ko way juróom jigéen faggul muy soxna Aminata Lo xam ngeen ne doom ju baax ju ne ñàkkut lu ko ndeyam fàggul ci kër baayam ndax baaxuk doom ndey ju liggéey dana ci joué lu bëree bëri soxna nit loo mi ko meññi suñ doon misaal rek ci tënk ci dayo ci kawe ak maqaama mi ko suñ borom jox doy na sëkk ci ne bi sëñ tubaa sampee yoon wi ñuy wax yoonu murit mooy ki njëkk a joxe addiya ak ruux bakkan bakkan loolu da ngeen dégg ku nekk naan addiya nangam lañ joxe joxe nañ ay milliards sëñ diw joxe na nangam waaye addiye ji gën a doon kawteef ci yoonu murit waaye juru sëñ baaraaku njëkk def mooy joxe sag ruu mooy sëñ tubaa wane ne faaw ci ñun ñetti ruu yi am ku wuy ji yàlla nga taamu ne man maay dem te loolu mu def bëri waane buñ ci doon fii natt ak taalibe bi fi jamono toll ñu bari seenu taalibe bi dana wekkee ko ndax ñu si bëri la ñuy bëgg-bëgg seenub sëriñ egguñu ak moom ci njëkk maa faatu maay njëkk faatu yaay njëkk faatu nu ne nag danañ ko doxee danañ wane pas-pas bu ne bu leen woon tey bis ni tey yaag sëñ bi képp fi des te faaw genn guru wuy ji suñ borom dana bëri lool ñoo xam ne seenu teeli teelibe dana woyax ba mel na sama gos ndax bëgg bëgg seenu dund ak bëgg bëgg lu bakkane kon soxna Aminata Lo doy na sëkk ci mooy nday ju njëkk a fàggu ci yoonu sëñ Tuubaa ak bëgg sëñ Tuubaa addiyey bakkan Cheikh Amadou Lamine Bara bu ñu waxee ay jagleem dañuy njëkke ci ganek addunaam loolu rek dañ ciy gis ne xaas la ci diggam ak tubaa ndax mi ngi gane àdduna ci ab dëkk bi Serigne Touba gën a fonk ci ab dëkk pàkk bi Serigne Touba gën a fonk ci àdduna fa la gane àdduna muy Touba. Touba xam ngeen ne Serigne Touba da koo bëgg-bëgg goo xam ne amu ci sago moo tax bi ko suñ borom di natt moom Serigne Touba dafa bokk ci lim koy nattoo mooy da ngay génn Touba. parce que xam na Touba importance bi mu am ci Serigne Touba te comme am natt wërta sedd moo tax daf ko boole ci nattu yi da ngay génn Touba moo waral. njëkk muy dem ci géej gi mu am juróom-ñaari at Touba ak li mu ko doon bëgg-bëgg ak li wër pàkk bi yëpp ak coono bi mu ci daj te même bi mu liggéey jee ba ba am ngërëmal yàlla ba def retour bi mu jaaree fi mu war a jaar bay war a dem darul marnaan darul marnaan bi mu tollee fii ñuy wax kàdd ballo ji suñ borom daf ko xamal ci ne mayuma la sa ñaari bët sa ñaari bët yi teg teg teg teg gis Touba sa xar kanam mayuma la mu gis Touba bu sa ñaari bët nee jàkk Touba ñu far li nga am ci sa diggante sa borom nga xam ne bi muy traversé kàddu balaju ngir mën a dem daarul man naan ci gawar gi mu waroon aw fasam dafa jël kaalaam këpp ko ci ñaari bëtam ngir bañ a gis Touba loolu sanction bu rëy la ci waxin euh, nattu bu rëy la Touba googu ngeen gisit ñaan yim ci daan ñaan ñaan na ci ay ñaan yu bëri ci ci ci téeréem yëpp waaye dinaa ci cité ñaar rek boo demee ci faw seeni am na fu ñaan suñ borom pakkam bi di Tuubaa na ko yàlla def mu gënal ko ci pàkk ci kaw suuf moom mu gënal yàlla gënal yonent bi te Sëñ Tuubaa yéen ñëpp d'accord ngeen ci ne du ñaan lu yàllay gàntu waj yaa rabbi ahabba maskani fi ardina lak wala wali maai sani maa ngi lay ñaan yow sama borom subhanahu wa taala na nga ma defal sama pàkk bii di Tuubaa mu gënal la ci pàkk yow ak yonent bi alayhim salaatu wasalaam pàkk boobu it Sëñ Tuubaa ñaanaan na ci wala xadd karam naa bi mu nekkee ci géej gi geneenu ñaan jëmee ko ci Touba mooy suñ borom yem yembalal ko yombalal ko ak dellu seem ci Touba akuk daluwaayam Touba nekk daluwaayam dëkkuwaayam yasir ruju'i li Touba wa amini waqini azal wara wal tutib lii samma iskaana nga xam ne ñaanaan na suñ borom mu yombalaatal ko jàppandalal ko mu dellu si waat Touba Touba nekkaat ab dëkkuwaayam kon li ci xaas ci Cheikh Mamadou Amine moom képp la yàlla may ci doomi Serigne Touba ju ganee adduna Touba moom képp moom képp te sëñ Touba xam ngeen ne njaboot na ay leeram macha allah waaye Cheikh Mouhamadul Amine moom rek moo am xaasu feeñee ci biir Touba waaye amaat xaasu feeñee fii Serigne Touba tëdd tey nga xam ne moom moo ganee adduna Touba rek doy na sëkk loola rek loola rek jagle la waaye ñu ne la fi Serigne Touba tudd muy fii xabroom bi tollu tey. Cheikh eh, mu mu bu weesoo gane addunam googu mu gane adduna ci Touba ñaareelu xaas gi mooy xam ngeen ne Sëñ Touba ay leeram ay doomam jamono ju nekk seen gane adduna du leen joxu tur daanaka bu fekkee am na ci ñum joxu tur néew na lool day bind aw tur benn mu bind ko ci suuf wa ilaa mu bind ko ci kayit wala mu wax ko joxe ndigal ne nañ ko tuddee tur sàngam gis ngeen ko ci tur yëpp ba ci sëñ Saliou mi fi mujjee jóge dengeen bi mu joxe aw turam Cheikh Mouhamadou Amine Diop Dagana Cheikh Mouhamadou Moustapha it gis ngeen ba mu joxe aw turam borom saam ak ya ci aju yëpp waaye Cheikh Mouhamadou Amine moom ci boppam bi mu ganee adduna Sëñ Tuubaa ko taawul boppam si ñaari loxoom tuddal ko boppam loolo yi dafa nekkaat geneen kaas gu dox ci diggam ak Sëñ Tuubaa bi mu ko tuddee it boppam it gis ngeen nim mu ko tuddee tànn ki mu gën a bëgg moom Sëñ mu muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam xooli tur wuñ gën a miin ci turi yonent bi Muhammadul Amin bokk na ci tur yiñ gën a miin ci ni ñuy wooyee yonent bi nga xam ne baatu al amin biñ ko koy wooyee sax lislaam gi wàccagut ci moom ndax jub gi ci moom ak dëggu gi ci moom yonent bi ak maandu gi ci moom nga xam ne dañ ko ko xamee ba mu feeñee ci jamono rek bàyyiwuñ ba risaale gi ñëw ci yonent bi ñuy door a seede ak njub yéefar yi nekkoon màkk sax xamoon nañ ne yonent bi moom ak njub aku kóolute aku wóor da koo judduwaale loolu lañ ko xamee ba nga xamee ne islam wàccugut ci moom suñ borom jox joxagu ko risaala gi mu jël sëñ baara tuddee ko tur kon day mel ne feeñu jamonoom loolu rek mënees na cee jàngee ne sëñ baara boromu dayoo bu kawe la borom maqaama la ba ko ñaareel mooy bi mu xamee ne gane ne adduna ba noppi ba toll ci dal jàng danañu wax ne sëñ Abdourahman loo moo ko njëkk a jàngal waaye ci rewaay yi gën a wóor sëñ Tuubaa ko njëkk dalal am njàng ndax sëñ Tuubaa doomam yi ci bëri ñi jamonoonteeg moom ci bim demagul géej gi bu leen tuddee eh, ginnaaw seenu dal jàng buñ ci tollee da leen di dalal door leen a joxe ndax am na lu jublu ci dalal gi ndax dafa am lu mu waxoon ci Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh dul faadal te loola mooy li valable ci doomam yépp bi leen di dalal jàng ci Darou Khoudoss daf leen a wax ne leen nangoo jàng laa leen sant waaye gaaw a mokkal ak loo mokkal dootu la rëcc maa ko war maa war loolu sama digganteeg yéen maa leen ko gàddul loola kon beneen mbir la yéen nangoo jàng dong laa leen sant waaye teel a mokkal li jàng ak lu dugg dootul génn Sëñ Tuubaa ne leen maa leen ko gàddul da ngay yëg ne seenum njàng kon dana wuuteeg leen nitu kese wala ku dul doomi Sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Lamine Bara it kon noonu lañ ko dalalee jàng Sëñ Tuubaa dalal ko ca gannaaw ak dalam ci la ko sëriñ bi jébbal nag mu dem ci loxoy Sëñ Daam Abdourahman ba jàng fa alquran jaare fa jóge fa jaar ci loxoy eh, borom darul musti Cheikh Ibrahima Fati maam Cerno ba nim jaare ci loxoy sëñ Mbay Jaxate ak yeneen borom xam-xam yee ci topp yëpp cib tënk Cheikh miin liy feeñal ak jagleem mooy ci wàll xam-xam rek baatinub Cheikh moom Lamin fa njëkk a feeñee ndax bi mu tollee ci jàng suñ borom dafa ñëw ak i nattu nattu yi mooy yàlla da koo tegoon tawat ju metti tawat ju doy waar ju diis teg ko ko moom ak Cheikh Mamadou Fadal teg ko ko moom ak Cheikh Mamadou Moustapha mu moom mu gën caa mettale nag moom Cheikh Mamadou Amin Baara mu gën caa mettale ci nattu yi ba nga xamee ne nattu yooyu egg na ci mettit ak jaaxal borom daaru ci ne borom daaru dafa nekk koo xam ne bëgg gi mu bëgg sëñ tubaa mënee su koo natt mënee su koo xayma sëriñ tubaa it kóolute gi mu am ci borom daaru dafa jéggi dayoo ba kenn mënu koo natt yéen ñëpp dégg ngeen lim daan wax Sëñ Tuubaa daan wax ne jaay ki am njëg moo tax lim doon jaay jaay ne ko as Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne may kala neex kala soob moo tax lam doon maye may ne ko maam Cheikh Anta borom gaawan waaye daan wax ne ne dénkaane ka nga doyloo te wóolu ko moo tax la may dénk dénk naa ko Cerno Ibrahima Fall moom laa doyloo borom daaru muxti da doon wax ci ay kaddu bis ci ne maa ngi ñaan yow suñu borom Cheikh Amadou Fadal mii ak Cheikh Amadou Lamine Baara mii ak Cheikh Amadou mii ma sëñ tubaa dénk suñu namoo faatoo ci samay loxo maa ngi lay ñaan yow sama borom naa ñàkk sama njaboot tañ des fi rus naa sëriñ Tuubaa dénk ma ëllëg muy ñëw la ma ko dénkoon di am lu ca manqué ma lay ñaan ku ci nar a dem ci doomi sëñ Tuubaa yi na nga ko wuutalee ak samay doom sëñ mu Awa Balla moo nekkoon ab taawam nettali nañ ci xissa wax ne bi ko borom daaru di ñaan am na kenn ci magi taalibe yi ku déggoon ñaan gi koo xam ne dafa ñaan ne borom daru su fekkente ne kenn ci njabootug Sëñ Tuubaa gii daa am ku ci nara a wuy ji moom mi ngi ñaan suñ borom jël ko te ci guddi googu wax nañ ne guddi googu wala lu ci topp guddi yu néew yooyu ci la génn àdduna moom taalibe boobu tawatu Cheikh Mamadou Amine jooju nag dafa jàppoon dégg bi jàpp làmmiñ wi ak dégginam neexul woon waxam it leerul woon baatu rëkk day jii nit ñi di foowee ci Cheikh Mamadou Lamine di nettali ci moom ay xissa yoo xam ne boo ko gisee sax da nga yaakaar ne xanaa moom sëñ Mouhamadou Lamine am nit jëmmaloon joo xam ne dëkk bu mu jub rek nit ña daw tëju ndax yoonu mu diiwaankat yu bëri dañ ko yàq dañuy nekk di nettali ay xissa yoo xam ne dañuy bëgg a am xaadim mbóoj mi rek xam ne xam nañ ne ku xiir ci sëñ bi la ñuy jël ay xuraafaat di ko nettali nettali yooyu di ñu topp ba mujj gi dañuy sànq ci lu bëri suñ digganteeg sëriñ bi dal na yoonu sëñ sëñ moom lañ baara daanaka foo dégg waxtaanu sëñ baara ñu automatiquement ni ñi bëri dañu yaakaar ne ku tàng la woon ku nangam la woon déedéet fekk ne Cheikh moom liñ baara ku lewet la woon ku ñeme woon ak jaxasoo ak mbooloo la woon te ku daa xettali la woon waaye bi jafe-jafe yooyu amee ci moom it téewul suñ borom def ci moom xeetu fasaa goo xam ne ci wàllu dégg ci man alquran ci wattu ko waaye ci mën a way ci dégg arab ci maîtriser mboolem xeeti xam-xam yi mu jéggi ci dayo lool ba bu ba bu wayee baa mu bind boo ko comparé ak mbindum sëñ tubaa doo leen mën a ràññile loolu bañ na ko ba moom liñ ko gën a xamee ci ci ci yoonu sëñ tubaa moom lañ gën a xam ci doomi sëñ tubaa yi koo xam ne boo tiimee mbindam tiim mbindam sëñ tubaa tekkatle leen wala xàmmee leen day jafe ñaari waxinam waxinam ak waxinu sëñ tubaa loola kon dayo bu rëy la cër bu rëy la te moom moo ci njëkk a sant suñ borom bu dee ci alxuraan ji moo njëkk a wax ne mi ngi sabal ak sant suñ borom mi nga xam ne moo ko jàppandalalal alquran moo ko mënaloo moo ko watloo mooy liy wax ne subhaana man allamana alqur'ana wa yastara al ulumu uluma wala awsaana maanaam mi ngi sant suñ borom ak di ko màggal ci jàppandal gi ko yàlla jàppandalal xam-xamu alquran watloo gim ko watloo alquran ak manloo gim ko ko loo ci jafe-jafe yooyu nga xam ne dab na ko ba pare te loola kum dal ci nituk saayir rek liñ mën a xam mooy sa alquran moom même bu fekkee man nga ko boo koy wax du leer te jàngal la du yomb ndax jàng ñëpp xam nañ ne ab dégg baax na ci làmmiñ wuy wax it baax na ci waaye kon loola wane na ne moom suñ borom moo moo def alxuraan ci moom donte ci saayir bi jaar na ci ay sabab sabab yi mooy dem na ci daara ñu koy jaarale fii ñuy jaarale doomi soxna waaye nag la ne ci moom ña ko yoroon sax xam nañu yëfi suñ borom la tey loolu suñ tubaa ko daan wax suñ tubaa danaa wax ne ak njabootam seenu tërbiya te buñ na tërbiya xam nga na ngay doxeeg na ngay nañ lay yareeg lépp ngi ci danaan wax ne yàlla miy dund te du faatu moo féetewoo seenu seenu seenu tarbiya wax ne kon yàlla mi nga xam ne nag day dundu te du faatu ak tarbiyaam du mën a yem ki lay yar te day dund di faatu nga xam ne doomu aadama la ni yow yarub yàlla day wuuteeg yarub doomu aadama tarbiya gi yàlla def ci ab jaamam day wuuteeg tarbiya gu jaam def ci moroomu jaamam daana wax ne it moom Sëñ Amadu Amin Baara hadaytani yaa aadiyan saqaytanii kë sa safa rabbaytanii daana wax ne yàlla mi aji gindee ji suñ borom mooy ki ko xamal yàlla suñ borom moo ko xamal yàlla mi nga xam ne moo mën a jëlee nit ci ak dugal la ci ak xam moo mën a fekk fu dara nekkul mu def fa dara nee na suñ borom moomu mooy ki ko xamal nee suñ borom moomu it mooy ki ko mandal ci kaasi leer yi muy mandalee góor yàlla yi li wax alxaybu muy li nga xam ne suñ borom moo tànn ay nit ci ay nitam ay jaam ci ay jaamam def ko ci ñoom te bu ko defee ci ñoom ñu wuuteeg yeneen i jaam yu mu nekkul ci ñoom nee suñ borom moo ko mandal ci kaasi góor yàlla yooyee kaasi leer yooyu suñ borom moo ko ci mandal tarbiya it mu wax ne suñ borom moo ko tarbiya mooy ni mu mel yëpp forme bi mën naa am ci saayir am na fu mu jaar waaye xaqiqatan dëgg-dëgg nag la ca moom suñ borom moo ko def ci moom waxaat ne feneen it ne suñ borom moo ma xamal xam boo xam ne far na ci man li ñuy wax sikk ak i lor mooy li wax ne allamtani yaa rabbi min ladunka ilmal yaqini yal assa wa zakka nee na yàlla sama borom moom suñ borom mooy ki ma xamal xam-xam boo xam ne dañal na ci man ak sikk ak i lor amul benn sikk wala lor goo xam ne topp na ma lu dul ne loola suñ borom moo ma xamal la tax ma tàqali koog loolee wax ne suñ borom moomu mooy kiy jox ab jaam ci lu dul ak laaj loola lu rëy la ci tabuk suñ borom gi dana may jàmbu laajut waaye dana gërëm nit ngërëm lu xam ne ni àndut ak sabab maanaam dama daa daa daa dinaa koy wax suñ tubaa dafa amul njàmbaar suñ tubaa suñ tubaa bu dul woon diggam ak bu dul woon diggam ak yàlla ci li ko suñ borom defal ci ak jagle waaye saayiru suñ tubaa parcours bi rek dangay gis ne suñ tubaa lu mu am rek mérite la maanaam waxuma li dox ci diggam ak suñ borom waaye parcours suñ tubaa ci saayir ni mu doon dundee ci mën a muñ adduna ak man koo wan gannaaw ak ñemee affronter lu ne ngir am yàlla da xam ne Sëñ Tuubaa lu ko yàlla defal nag mérite ngi loolu nag bukkut la suñ borom nasaat ci seen diggante ñoom ñaar kon moo tax moom Cheikh moom lañ baara mu wax ne yàlla moomu nga xam ne dana jox ab jaam ci lu dul laaj di gërëm ab jaamam ci lu dul ab sabab di feeñalal ay kii maanaam ci jegeel lu sori moomam melal nii ma mel mooy li wax ne tuxti bila talabin turdi bila sababin tubdil ajaibi fi taqribin ma bauda Cheikh Mamadou Lamine Bara moomu mel noonu ci wàllu jàng mel noonu ci wàllu wa euh, euh, dégg dégg xam-xam waaye nag daal di doon kenn koo xam ne nag dafa daal di taxaw ci yoon wi fas yéene wuutu Sëriñ Tuubaa ci li mu bëgg ku ko fa wuutu ndax Sëriñ Tuubaa képp ku ko bëgg a donn yaa ngi ko mën a dondoo ci dundal alxuraan ak sunna mooy jàng ak jàngale ak yere sëriñ Tuubaa des ko doonee ci matériel ndax amul alali adduna ju muy jàpp ne alal la kanzil kitaabu wala hadiisu wala dab laa jamu fiddatin wala jamhu sahab sëriñ Tuubaa daana wax ne alalam trésoram capitalam li mu am mooy alquran ak hadiisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye alal wala wurus wala moyen adduna yi ngeen di dajale jàpp ne mooy am am sëriñ Tuubaa considéré ko am am moo tax daana wax ne ne képp ku ko bëgg a donn yaa ngi koy donnee ci téereb yàlla bi mooy jàngale ak yar moo tax doomi sëñ tubaa ju ngeen xam dale ko ci cheikh mouhamadul moustapha ba ci cheikh mouhamadul mourtada ñooñu ñëpp ñoo bokkoon benn mission bu ñu am ci sëriñ tubaa mooy yaatal lislaam yare ak jàngale ak tarbiya rek moo nekkoon seen métier daanañu wuutee tuuti nag ci fee xeeti doxalin ndax kenn ku ci nekk ci biir dox bi ngay dox ci sa digganteeg sëriñ tubaa sëriñ bi dalay am sa jagleel bopp gum la nasal loola moom am na waaye ñoom ñëpp seen mission benn la mooy defar ab jaam yar ak ruuxam yar jëmmam ba man koo jubaleeg boromam subhanahu wa taala loolaa tax Serigne Ka di way ni ko suñ borom melaloon daana wax ne day way te jànguloon arab te jànguloon araf day way te jànguloon araf te man ndaxam duñu suruf moo man arab te man wolof jommal na mboolem xarnu bi kon loola day tegtale ne borom mi mbir la beneen bi ci des mooy ni suñ borom defee mu nekk ku fees dell ci wàllu baatin wàllu baatinam mooy xam ngeen ne Cheikh Mouhamadoul Amine jaloore ju ne wane na ko ci ak dundam baatinam mbokkoon na ci ni mu bindoo woon mooy ci mbooloo mu mas a def ab jataay ak jataayante ak ñoom yàlla defal na ko ci moom loo xam ne mbooloo mu àgg kum na jàkk ci ñaari bët xam sa dund lu ci des loola ci baatinam la bokkoon mbooloo mum dem kum ci janlool ci ñaari bët ca sansa suñ borom dana ko wax li des ci sa dund boo dee jeexal at mi dana ko xam boo dul jeexal at mi dana ko xam xam na ñaata bis wala ñaata weer wala ñaata fan moo la dese ci kaw bu la xoolee jàkk loolu it gis ngeen liggéey bu rëy bi ci daan liggéey moom Cheikh Amadou Amine bokk na ci liggéey bu rëy boobu mooy da daan dem ci dëkk yi niñ ko xamee woon di wër dëkk bu mu dem bu fa àggee yor bindukaayam di bind ci tànk yi muri jullit ñam fay fekk rek da leen di bindal ci seeni tànk jamono jooju nag ku mu war a bind ku mu egsi ci yow te xam ne yow doo fekkee déwén du la bindal waaw ku mu xool rek xam li la des ci sa dund du la bindal lu du nag mu mu gis koo xam ne da koy ñaanal war na koo mën a ñaanal suñu borom mu bàyyi ko mu dundaat lu ëpp lim dese def na ko ba tàyyi eh, fekk na koo xam ne ba tàyyi ay bokkam génn nañ ci seen xel fekk na jëmm joo xam ne ay bokkam génn nañ ci seen xel ci saayir mën nañoo wax ne li ñuy wax ak làqu am na ci moom waaye ba mu noppee ci mbiram daf ne waat ñokket mel na du moom wax nañ ne loolu bi mu eggee ci nopp Cheikh Mouhamadoul Moustapha fekk mu jotaayante Cheikh Mouhamadoul Moustapha mu ne ko ndax baara da ngaa nekk da nekk kajoor su ma juumul dëkk boobu la ñu waxoon mbaa kajoor ndax da ngaa nekk kajoor di di rey ak dekkil da da ngaa nekk foofe di fa rey ak dekkil ndax xisa bi mu dégg ci moom waa nañ ne Cheikh Mamadou Lamine Bara da ko ne rey ak dekkil loola cërub yàlla la yàlla dong moo ko jagoo man ni may def rek mooy gis koo xam ne ak ruuxam setagut ci aw yaramam génnagul ba jeex ma xam ne su ma ñaanee yàlla man na fee desaat liggéeyal Sëñ Tuubaa ma ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu continuer ba ci kanam loola baatin la ak jubóog yàlla dafa jubóog yàlla lool loolu suñ borom a ko def ci moom loola mooy lii sëñ Musaa Ka naan wax faja aaja moo ca gën a gaaw ndax lu mu wax boroomam mu ne waaw day fal di folli ci lu gaaw mën naa ragal ci xarnu bi yàlla am na ay gaayam yoo xam ne ragal nañu yàlla eh, egg nañ seen diggante yàlla lu ñaan yàlla nangu leen ko loola am na fii adduna toll képp yàlla sàkk na jaamam ñoo xam ne bu ñëwoon suñ borom tukkalal adduna tey adduna kenn du fi des loolu yàlla moo koy faye jaam yow en tant que doomu aadama mën naa rëy ci yàlla waaye rëy ci mën naa rëy ci yow waaye rëyut ci yàlla suñu borom ndax yàlla xudratoom gi muy kàttanam gi moo mënee nu ne te lottul ci dara kon noona daana ko def dégg naa ci beneen nettali boo xam ne ab sëta ma ko nettali mu wax ne am na bis dem na ci ci benn barab boo xam ne benn mbo mbokk day rax day raaxaloo ci mbo ci biir biir jataay bi saa yu sëñ baara di bind bu agsaa ci moom da koy jéggi mu bàyyi fa sëñ baara bu génnee dëkk boobu da koy toppiwaat demaat beneen dëkk raaxaloowaat ci mbooloo mi ndax yaakaar na ne fu mu rek bu jaaxasoo ci biir mbooloo mi sëñ bi man naa bind tànk bi du xam xàmmee def ko ci ay barab yu bëri sëñ baara ne ko xanaa du barab sàngam barab sàngam yaa nga fa woon te saa yoo joxee sa kii bi duñ ci bind feeñ wane ko feeñalal ko nekk daal topp gi nga ma doon topp boobu ba léegi xamees na ko waaye mu ñaan ak toroxlu ak yalwaan ngir mu bindal ko wax nañ ne dafa am lu sëñ baara sàkku ci moom ngir mu def ko mu mën koo jotalee loola nga xam ne gannaaw bi ko waaj a defee la ko bindal ci tànk ci ci ab tànkam comme ni muy bindalee ñëpp ngir ñu man a mën a wéyal ak dundam loolu ab sañ-sañ la bu ko suñ borom joxoon mbirum baatin la waaye nekkul woon nit koo xam ne rek moom suñ baara day wër di feeñal baatin rek déedéet ndax borom baatin jamono jii wane baatin daa am lu tax mu di ko wane waaye ñoom duñ puukarewoo seen baatin ndax dañuy wax ne nitu yàlla dana toll fi muy toll ci buy wane baatin day àgg ci am kersa ci ni nga xamee ne jigéen buy door a gis baax mooy dereeti régalam noonu muy amee kersa jigéen bu koy door a gis pour la première fois xamu ko noonu mu koy gêné nitu yàlla guy wane baatin noonu la ko feeñal baatin di gêné bokkut ak jamonoy tey nga xam ne nit ñi luxus képp lañ man ba pare di tànqal nit ñi ànd ak nag ñu nekk ci xeet woo xam ne ak askan woo xam ne daanaka bu nit luxusee sax ñu yaakaar ne koy fanaan aras la te demut fenn demut fenn moo tax damay wax ne léegi baatin ak neen baatin ak baatil kenn mënatu leen a xàmmee léegi ndax léegi ki nga yaakaar yaakaar ne li muy def ak wilaaya la am njabarkat da koy def moo tax ñun ñu war a gën a góorgóorlu fexe ba doon nit ñoo xam ne aqiida dañ koy am pas-pas bu dëgër bañ a focaliser wu rek ci jëmm joo xam ne dafa def loo xam ne jommal na la ci xel wala ci sa bët rek nga yaakaar ne aras la fanaan démb loolu day tardeel ab doxu taalibe day tardeel ab murit waaye Cheikh Mamadou Amine dafa yamul woon ci loolu dafa génnoon ci yooyu yëpp doon na ko def ci jamono ju mu war a wanee baatin waaye ak mbiram mooy da doon dox ci yare ak dox ci yaatal xam-xam mooy di bind ay téere di jàngale benn muy bind jëme ci dund ak sëñ gi ak am solo gi sëriñ tubaa am solo te yàlla baaxe ko adduna yëpp rawatina ñu ne ay jullit lañ rawatina ñu ne ay murit lañ ñaareel bi di bind ay téere di ko jëmee ci diggam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xam dayo ak daraja bi yonent am ak bëgg gi mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daa bind ay téere di way jëmee ko ci ñi mbokkal Serigne Touba ñu di ay magam ak ñi ko féete eh, ndaw mu féete leen ak mag ndax bu ngeen seetloo ci doomi Serigne Touba yi ñaar rek ko ci mag ci ñi xam muy Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal beneen bi ci desin mooy di yar eh, ginnaaw yar gi. mu nekkoon koo xam ne ab yaram daawul batale ab yaram Cheikh Mamadou Lamine dafa daan takkook ay dongam mosu leen a batale kenn egg na ci ab génn defatu ko woon daana génn ci njëlbeenam ba loola àgg ci Serigne Touba xam ngeen ne xissa la boo xam ne demoon nañ ba àgg ci Serigne Touba wan ko ne ko sëñ Baara du kuy toog foo ko fekk day dem rek ba sëñ Touba woolu ko ci njaareem laaj ko loolu muy dégg ba waxante caag moom ak nam ko ca sante kaamil alxuraan yam ko ca doon binduloog nam ko bindeeg kaamil yi jox sëñ Tuubaa yëpp sëriñ bi xam ngim xam ne ña fi ñëwoon di wax am na lu jublu ci seen wax ji lu bokkute ku defar waaye mu nekkoon ku toog xam ngeen ne ab yar dafay laaj mulaasama buñ ne nit dafa war yar nit baax na nga ki ngay yar nga takkoo moom moo tax sëñ Tuubaa da ko daa wax xam ngeen ne sëñ Tuubaa ñëpp ci yoonam yi ñim defar dafa takkoo woon ak ñoom ci ak njëlbeen bi mu demee di dem di dem ba mbiram di gën a yéemu nga xam ne diggam ak suñ borom xajalutu ci dara ci la nag jël kenn ku nekk ci ñenn ñi mu leen di boole ñeneen ñi mooy këram yi seexam yi ak daaraam yi nga xam ne kenn ku ci nekk dana la tofal ci kenn nga dem ca barab boobe masalan bi max naa sëñ buso mi maamam sëñ mbàkki buso ak ay maamam yëpp ci ahlu buso be ku leen xam-xam ne sëñ tubaa dalee leen féetale woon wall xam-xam ak borom daaru boo xoolee sëñ daam abdourahman loo nga xam ne dañ koo féetale woon wàll jàngale alquran sëñ mandumbe xabbaan ak cheikh ibrahima fall dañ leen a féetale woon liggéey mooy yar nit ki ci wàllu liggéey kon sëñ baara nag mu mulaasama boobu mu xam ne mënta ñàkk mooy taalibe boo ko bëggee defar bëggu koo yar danga nga koo war a taqoog moom jamono ñu nekk mu lay gis ndax yar dafa am ñaari melo ndax am na nit ki boo ko yar ci da ko yar ci kàllaama ci wax ak ni muy jëfalanteeg moom ak ni ngay jëfalanteeg moom waaye nag yar bil aal mooy nit ki dina yar nit ci ci melo yi rek nit di nga ko yar ci melow comme ni ngeen ko xamee ci asayqina saalih Serigne Saliou ni ngeen ko xamee ci xeeti yarin yi mu doon yare nga xam ne dana am jamono yoo xam ne day toog di wax def leen bàyyi leen di dénkaane ñëpp di déglu mu am jamono yoo xam ne da ngeen di gis ne Serigne Saliou du wax day jataayoo mbooloo mi rek jublu penk def tekk waaye gis nga bis jamono yi eggee ci situation yu mel noonu cala jataay bi gën a dal sax ndax képp ku ñëw ci jataay bi jataay boobu bu ci tollee jamono yooyu kenn du ne sa morom noppil ñëppay maasandoo dalandoo mel ne kuñ pinge seeni cër moo tax Sëñ Tuubaa bi mu eggee ci xatu mënatut a takkoog nit daana yebal nit ci nit ne ko demal mu defar la masalan nit ñëw na ci moom mu laa mu wax ko ne ko ab yar takkoo la laaj waaye defar naa Balla Fally Dieng demal mu defar la sëñ Balla Fally Dieng ñenn ñi daana ñu bëgg a ci wàllug yar mu leen di taxalal ak xasidaam yi masalan bi max naa xasida ak jaalibatul maraaxib nga xam ne day dox ci ak tarbiya daana ku féetaloo nit mu ne diggante bu gàtt ñëpp xam ne kii ku defaru la Cheikh Amadou Lamine Bara mel noonu ci yare ak jàngale ak taalifi téere ba bind ay téere yu dul jeex yu bari yuñu a lim ndax xam nañ ne ci doomi Sëriñ Tuubaa yi moo ci ëpp lum bind bokk na ci ay munawirul bunyaan safinatul abraar saadatul abyaar al axyaar saadatul axyaar rumtu bi ahlil badri ak yeneen i téere yoo xam ne def na ko nga xam ne ci njabootu Sëriñ Tuubaa kenn ëpp ko ci loo bind te lenn lu ci nekk boo ca demee danga nga cay fekk mu bind ca wala mu way ca loo xam ne ab jullit mën na cee sukkandiku ngir defar diinem mu nekk kon koo xam ne ay atam at yu néew la waaye nekkoon ku rafet jikko ci mën a jëflanteeg ku ne njëkkee ko ci ñim bokkal sëñ Tuubaa muy Cheikh Mamadou Moustapha muy Cheikh Mamadou Fadal ba ci njabootu sëñ tubaa yëpp kenn ku ci nekk gis nañ rafetuk jëflante gi Cheikh Mamadou Amin Baara daan jëflanteeg yow boo ci seetloo it njabootu Serigne Touba ji kenn ku ci nekk ba lay xool di la tuddee doom kenn ku ci nekk ba lay xool di la tuddee doom say at bëriwul bam lay xool di la tuddee doomam te ngay rakkam koo ci xool ku mu tuddee doom rek magee woo doom ja lu bëri muy ñim mag ñoom masalan ñim ci mag ñim féete ak mag ku ci nekk ba lay jox aw tur di la tuddee doom ci njabootam gi magee woo say kam la tuddee lu bëri bi max naa dinaa ci jël benn misaal sëñ Abdou Lahat ki tuddee sëñ Abdou Lahat ba mu koy tuddee siñ Abdou Lahad sëñ Touba sëñ Abdou Lahad magewu ko lu bëri mooy sëñ Abdou Lahad Baara booba sëñ Abdou Lahad bokk na ci su ma juumul mën naa ne sëñ Abdou Lahad Baara mooy turandoo wu njëkk ci ay turandoom kon sëñ Abdou Lahad Baara noonu la meloon daana defar it ay nit bëri na ci yoon wi ñu ngeen dégg ñoo xam ne ci loxoom lañ jaar mu tarbiyee leen jàngal leen yar leen ba sancal leen masalan sëñ ñaan sëñ ñaan Jóob ñëpp xam nañ ko sëñ ñaan Jóob masalan sëñ ma koddu kase daana maye it ay xar maye ay xar baax mooy kenn ku ci nekk fii ci adduna bam bam la yaree def ci yow li mu war a def wax na la loo mën a dalalee sam xel adduna ak alaxira dinaa ci jël misaal sëñ ma koddu kase daana ko wax ne ko yow ndax sëñ baara danaan wax ne képp ko aju ci moom fegal na la sawaraw ëllëg doo xam nu mel sawaraw ëllëg bu sa aju ci moom nekkee ak dëgg sëñ ma kodd kase da ko daan wax ne ko yow ma kodd dox naa ci sa digganteek sawaraw adduna ak la ko daan wax moo tax suñ ma kodd kase ñu ko xam xam nañ ne daana fekk taal buy takk ñu teg ci lu tàng mu nekk ko sojjet di ko dëtu mu di naan nii loola def na ko ay yoon te du ko def dara daana fekk luñ teg di ko tàngal ci taal mu yëkkati ko ba pare jël loxoom tibb ci xale yi téye ko te du ko def dara ndax sëñ baara ko seedel garanteel ko ne ko doo lakk fii doo lakk fa njëm waaw loola nag danaa wax ne mën naa dalale am xel dinaa wax ne ñun lépp solo mooy boo demee bay nit jël sa jëmm ak sa ruux di ko jox kenn ci sa diggante yàlla nattal ki nga koy jox bu baax ak ruudu lu ñu foowe aslamtu nafsi dafa war taalibe bu nekk waaye bala nga ne aslamtu nafsi xoolal ki ngay jébbal sa nafsu bi ndax nafsu lu foor la lu foor la doomi sëñ tubaay nag danoo mën a dalalee am xel waaye sët bu jël seeni tànk waras naa mën a dalal sam xel ci yow ndax dinaa wax ne ki nga ne aslamtu nafsi te bu la fekkoon ci xat-xati adduna mënu cee génn bu ne la xat-xati yowmal xiyaam danaa la ci génne dana luus lool dana luus te doomi Sëñ Tuubaa xat-xat buñ la mas a fekk ci adduna mën nañ la cee génne doomi Sëñ Tuubaa ak sa cas lu mu critique critique bu dee yëfi adduna moo xam dossier bu nekk ci loxo yi procureur la moo xam tawati baatin la moo xam tawati saayir la moo xam situation boo mën a nekk doomi sëñ Tuubaa da koy dindi vite fait moo tax kuñ dig yow mal xiyaam ne la mën nañ laa génn ci coona danga koy mën a nangu parce que ci saayir bi rek wan nañ la ko kon it fii ñu nekk ba tey ba tey sëñ tubaa ndonoom mi ngi fi du fi jug ndonoom mi ngi fi am na ñu ne ci yoonam wi ñoo xam ne jamono ju nekk ci luñ la fekk lu dul noonu boo ci bëggee génn am nañ man mënu mën la caa génne kon nañ góorgóorlu bàyyi xel ne tànn daal ki ngay jébbal sa bopp lu am solo la sëriñ Cheikh Mamadou Amine Baara nekk ku ndiru sëriñ Touba waaye dondu sëriñ Touba ci ay nattu yanu ay tiis eh, yanu ay mbóot ci sëriñ Touba lu bëree bëri dondu ci sëriñ Touba ay sañ-sañ dondu ko ci wàll baatin dondu ko ci wàll nattu nattu yi mooy xam ngeen tawat yi mu daan toggoo Cheikh Mamadou Baara daana toggoo tawat yi métti te doy waar te tawat yooyu yëpp li ko yóbbee woon mooy dox ci digganteem ak jaami yàlla yi balaa yi jëm ci seen kaw xam ngeen ne nitu yàlla day toggoo ay natt ngir musal ñi ko topp doomi Sëriñ Tuubaa yi bëri jaar nañ ci loolu Sëriñ Saliou mii gis ngeen ko jaar na ci ak keneen ak keneen wax nañ ne daana feebar xeeti feebar yoo xam ne mel ak masalan bi max naa ay taab yu metti di ko dal ak yeneen xeeti tawat te moom wóor na ko ne lii du ay tawati saayir nii nii rek waaye natt yi waroon a dem ci ay jaam mu ñaan yàlla mu wuutul ko natt eh, natt yooyu nara a ci jaam yi suñ borom may ko mu yanu natt yooyu moo koy indil jàngoro yooyu loola loola loola lu tiis la moo tax sam sëriñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu di wax ne moom dey fab na ca baayam yan bu diis te wut boroomu tiis kuy rooti moo di dex gu fees moo mën a màndal xarnu bi dégg nga loolu fab na ca baayam yan bu diis bokk na ci yanu bi mu yanu ci sëñtubaa mooy gàddu ay balaa yu nar a dal ci sa aw askan wala saw ñoñ nga nga teggil leen ko sëñ loola dal na ko ba tàyyi daana xool luy ñëw te xam ne ne xajut ci ñii mu gàddul leen ko kon nag yan bu diis boobu la doon ci sëñ waaye nag ànd ak nattu yi ak yan bu diis boobu mu yanu ci sëriñ bi mësta feeñ ci xar kanamam wala waxinam wala doxinam day mel ne ku yan wut ku yan wut lu diis kon li wax ne kuy rooti moo di dex gu fees mooy ku bëgg a jariñu joxoñ naa la sëñ baara moo mën a màndal xarnu bi loola lu mat a bàyyi xel la wax ne sañ-sañ ba landi na ca moom jagle ga jiitu nab juddoom mbër mu ko suuru daldi luum meram xajul ci xarnu bi sëñ sañ bi ko yàlla jox moom Cheikh moom lañ baara dafa jiitu ak feeñam jagle gi ko yàlla joxit dafa jiitu ak ñëwug jamonoom waaye amul benn góor yàlla boo xam ne danañu la natt xayma sa dayo man laa méngaleeg Cheikh Mamadou Lamine Bara loolu mooy li ñuy wax ne mbër mu ko suuru daal di luum maanaam kenn koo xam ne mën nañ laa tëkkaleeg Cheikh Mamadou Lamine Bara ci daraja ak baatin ak dayo xamee su ko woon kenn mësu koo dab ci sañ kenn mësu koo dab ci ay jagle noonu la meloon moom Cheikh Mamadou Lamine Bara su fekkente ne ci ak dundamit ma daanalee ko rek ci liñ doon barkeeloo ci moom mooy def na benn leetar ab dénkaane moom Cheikh Amadou Amin Baara di ko dénk taalibe yëpp te mu baax taalibe bu nekk mu bàyyi ko xel dénkaane boobu dafa wax ne minni ila jamii almutaalliqiina bi taxayyanu mu wax ne bàyyee koo na ci moom Cheikh Amadou Amin Baara dénkaane bii jëm ci képp koo xam ne aju nga ci moom aju gi nag mën naa gën a yaatu moo xam da ngaa jébbalu ci sëñ Baara waa këram wala da nga di murit wala ngay ab jullit rek rawatina na ngay ab murit man kat maa ngi leen di digal mu ne man kat du ma leen digal loo xam ne ay lor da caa nekk maanaam lu ma leen di digal rek su ngeen ko jëfee du ngeen ci gis dara luy lore te it ma leen di digal dana nekk njariñ ci yéen te la ma leen di wax su ngeen ca jaaree lay ay lor ci àdduna ak alaaxira yëpp da ngeen ci mucc ana lan mooy digle yi digle bokk na ci li wax ne fal yawma amartukum fii taati llahi tabaraka wa taala wa taati rasuli sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di dénk na ngeen topp yàlla te topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne ab julit dafa war a topp yàlla topp gu wóor topp yonent bi alayhi salaam mooy di jaamu yàlla jaar ci ay ndigalam bàyyi ay terem waaye jaamu yàlla ci ñaari anam mooy jëf farata ak sunna ndax yàlla kat képp ku bëgg a àgg ci moom faawu ngay boole ñaar yooyu mooy tënku ci farata ak sunna doo ci bàyyi benn doone naa jëf farata yi bàyyi sunna yi déedéet ndax farata mooy alquran sunna mooy li ci yonent bi seppi jàngale ko kon dara génn ci alquran kon nag sëriñ tubaa daana ko wax ab murit ab jullit rek la daan wax sëriñ tubaa ab jullit rek lay wax ndax sëriñ tubaa lislaam ko tax di wax daana wax ne aljana kenn ci yéen ku ne yaakaar aljana te nanguwoo topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola mooy loo sa bakkan lu ko jom loola moom mooy bëgg lu mënta nekk mooy li muy wax ne rajaa u jannati bila taaati bi sunnatil maa yi quruurun yaati bëgg àjjana yaakaar caa dem te nanguwoo topp sunnas yonent yi alayhim salaatu wasalaam te yaakaar ne da dem àjjana loola nax sa bopp la te yàlla suñ borom alquran saa yi woote day wax ne na ngeen topp yàlla yaa ayyuha allazina amanu atiu llaha wa atiu rasul loolu ñëw na ci alquran ay yoon yoon kon sëñ sama Lamine Baara nee na dénk naa leen fu ngeen nekk na topp yàlla te topp yonent bi alayhimu salaatu wasalaam waaye nee na ngeen farlu ngeen farlu ci liggéey ab murit ab murit surtout ab jullit rawatina ab murit dafa war a fonk liggéey yoonu murit du yoonu yalwaan loolu na leer yoonu murit du yoonu am yàlla jox la ñun yaakaar nañ ne esprit biñ am mooy boo ne ab Baay Faal la fii ak nekkoo ku mën yor këll di yalwaan rek doonoo Baay Faal ak Cheikh Ibrahima Fall kuy liggéey ci yoonu murit maam Seer Fall la dàq liggéey ku mënoon a liggéey la xam nu ñuy investir nekk ku nite ku silwiise ku xam jamono Cheikh Ibra ilsaanul kaamil la mooy nit ku complet koo xam ne mëne su koo jam ci dara bu weesoo sañ-sañ bi ak baatinam melaw sayiru Cheikh Ibrahima Fall rek melawu yéeme la ci nite gi ak dégg jamono waaye nag du nii nga xamee ne moo xew phénomène bi xaw léegi yoonu murit nga xam ne nga gis ponkal moo xam ne day peese ay kilo dara jotu ko lànk dundam gi yëpp mu bëgg koo focaliser ci yor këll rek xam naa Europe moom tubaab yi duñ ko fi maye waaye Sénégal moo fa fees del amul métier amul benn métier yalwaan képp ba pare am ci ñu bëgg lu yomb lool bàyyi nit nit nekk ci mbedd mi di yalwaan di la jox ngay dunde loolu benn sëriñ wuru ko nangul ab bi loola sëriñ bu xam diine xam yàlla waroo nangu ab taalibe bi bëgg a dëkkee yalwaan di la jox ngay dunde mukk ci àdduna amut ci yoon murit luñ ci sof la waaye bokku ci kon nee na maa ngi leen di soññ ci nangoo liggéey farlu ku ci am barub liggéeyu kaayam bu xëyee jaamu yàlla am ay waxtoom na dem liggéey yaa ayyuha allazina uh, uh, amanu isa nudiya li salaati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah bakk suñ borom di digle ci suratul jumaa am na foo xam ne suñ borom def ne fa isa qudiyati salaatu fantasiru fil ard wabtaqu min fadlillah su ngeen sëlmalee ci jàkka ji bu leen fa toog di yaatalub jataay ak waxtaane leneen ku ci noppi ci julli gi dellul dellul ca tool yi wuti loo loo xewloo ak sa njaboot kon ab jullit doo fokaale yu rek toog ci jàkka ji wala toog ci kii rek jël sa dund gi yëpp yaakaar ne waroo liggéey waroo def dara wala lépp nga ne bàmba ji rek bàmba ji liggéey ci ci ci bàmba ji la bokk doomi Sëñ Tuubaa rek bu ñu leen xoolee ñun murid yi duñ sànku Sëñ Saliou xamoon ngeen ko Ndakaar sëñ Saliou mi ngeen xam di doomi sëñ Touba ñi yàgg xam sëñ Saliou xam ne ne nekkoon na Dakar nekkoon na Côte d'Ivoire Cheikh Blaat am nay jaar-jaar doomi sëñ Touba yi ngeen gis nii am nañu jaar-jaar dañ daan bay di dundee di liggéey di commerce di def lépp ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen fi mu jaar kon yoonu murid ku la gëmloo ne liggéey bokku ci di la ko waya fa la rek dalay nax moo tax Cheikh Lamine Bara nee na na ngeen di góorgóorlu ci liggéey waaye nee na maa ngi leen di dénk bu leen wooyafal bu leen di woyefal siyaare seen kilifa bu leen ko woyefal siyaare seen kilifa maanaam am murit daa war a xam siyaare ji nitu diine rawatina ab sëriñam sëb sëriñ nag ba ma ko waxee daa wala bal ci képp koo xam ne bokk naag sëb sëriñ yoon wi rek nga xam ne sëb sëriñ la bi max naa siñ xabbaanum siñ fallu mi fi doon wax léegi ba ma xamee ne sëtub sëñ Tuubaa na ma ko jàppee laa war jàppee sëñ Buso bi mii ndax càllale gi genn la mooy seexul xadim soxna Mariama bu sa jaariyatu la kër gi genn la kon du taalibe du ngor du diine nga ne man sëñ bu sa mooy sama sëriñ moom képp laa kippe ci yoonu murit sëñ diw mii nag moom bokkuma ci kër googu loolu jafe-jafe la te suñu yoon wi dañ ci war di waxtaanaat lu bari ndax yii may wax yépp yéen a ma ko gën a xam dafa fekk na man su ma koy wax comme sëñ Tuubaa laa koy waxal duma ma lijjanti kuy déglu nu mu koy interpréter ndax neex na ko wala naqari na ko dama koy waxal Sëñ Tuubaa te ci ndax gërëm ma jaajëf ak xas maa yem ci man ki ma concerné kenn képp la muy Seexul Xadim yoon wi dem nañ ba fu ñu toll nii da gis ku bokk kër Sëñ Basiru tege na waa kër Sëñ Basiru képpay nit nga gis ku bokk kër Sëñ Fallu am esprit boo xam ne tege na ne yoonu murit kër Sëñ Fallu képp a fi ne am koo xam ne tege na ne Sëñ Seelu képp a fi nekk te yoon wi bu ngeen ko boolee globalement Sëñ Tuubaa képp a fi nekk kenn na fi nekk mooy garab gi mooy reen yi ñii ay xob lañ ñii ay banqaas lañ ñenn ñi moom ñi mel ni man lañ ci ker gi lañ toog rek di xéewlu ba pare bëgg a tas kër gi waaye yoon wi kenn fi nekk muy Cheikhul Khadim li fi nekkit li koy may mooy la mu waxoon Cheikh Amadou Fadal suñ ma roqee buso suñ ma sàmba suñ Mour Moustapha doon fi doom du ko maye doon fi jarbaat du ko maye nekk fi rakk du fi maye li fi maye dara muy lii ma yor mooy jox sa bopp suñ tubaab lépp te doo doo doo réserver dara doo doo denc dara. su boobaa nag sëñ tubaa na muy defee yow xam nga ko ah maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy ñëw ci sëñ tubaa kan la indi ku indi boppam Cheikh bi muy jébbalu ci sëñ tubaa indiwul fi ndey indiwu fi baay indiwu fa doom boppam képp la jébbal sëñ tubaa te ba mu jógee ci sëñ tubaa sëriñ tubaa tofal na ci moom lu mat junniy bakkan te bakkan bu ca nekk na nga gëmee Cheikh raw na na Cheikh Ibra gëmee woon sëñ tubaa gis ngeen kon sëñ tubaa ni muy àtte woo ay ay ay ñoñam ku ko jébbal sa bakkan gëm ko wóolu ko yaakaar ko mu defar la te booy dem mu tafal ci yow mbooloo te ba ngay ñëw kenn nga woon te loo ko nanguloon mbooloo mi nga yor danañ la ko nangul loola la defal ñëpp ñi ko toppoon seex yi yi ko toppoon kon ab taalibe daa war di nangoo siyaare ab sëriñam te bàyyi phénomène bi xew léegi mooy taalibe boo xam ne day yëkkati ay kàddu yu mu wërti yëkkati jëm ci ab sëriñam wala mu jëmale ko ci ab sëriñ di wane ne sëñ bi ci boppam daa bëgg lu ndax sëñ bi moom ñaari weer yu ne mu ñëw ci réew mi wala sëñ bi daanaka li may laaj këram la koy tabaxee mooy xeeti sew-sew yooyu diingeet yooyu talkul ixtiraat jooju mooy loo xam ne ci sa xool nga ko def même bi max na man nga ko bañ a wax ca sa làmmiñ sax waaye foo gisee sëñ bi rek xool ko bu ñaari bëri yoo xam ne yaa ngi wane ne sëñ bi daal vraiment arrangé wuñu ab taalibe du def loolu ab taalibe bu gisee ab sëriñ du xool jëmm ja waaye sëñ Tuubaa lay sédd ci moom su ko defee kooka ak nu mën a mel même su fekkente ne la sëñ Tuubaa bëgg ku nekku ca sax yow nga sagal ko suturaal ko warmaal ko ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ba mu dem ndax bu ñu jàngee ci ay teggin Sëñ Tuubaa moo jàngal ci eh, nahju warai fi kulli xalq xaqa man xalaqahum doomu aadama bu nekk na nga teg ak yàlla mi sàkk doomu aadama boobu kon respect dafa war a am jamono ju nekk ab taalibe daa war di def fu mu gis ku ñuy tudd di tudd Sëñ Tuubaa bu amee lu mu koy jox mu jox ko ko bu yoru adiyee jum ko joxit mu warmaal ko ba xam ne yow warmaal nga ko cëral ko soo xamee ne gis nga ca jëmm jooja lu la neexutit saw làmmiñ yaa moom nga noppi te maandu te même su dee ayib nga xool sa ayib bi bopp par rapport ak moom ndax ku mu ci ñun denc nga ayib joo xam ne maanaam segg ko ak xoolaat ko ak jubbanti sa bopp rek war na laa doy liggéey wëris ngay wëri ayibi keneen kon ab sëriñ dañ koy warmaal rawatina ko bokk ci sëñ tubaa moo tax see moom limit baare nee na ku ngeen gis mu càllaloo ci sëñ tubaa na ngeen ko jox cër na ngeen ko warmaal nangeen ngeen ak moom dundin woo xam ne sëñ Tuubaa rek ngeen ciy xool loola nañ ko bàyyi xel moo tax mu wax ne loolu ci sëñ Tuubaa ko déggee woon mu digle ko ku gis kenn ci njabootam askanoo ci sëriñ bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw war maalal te war ma ji it buñ ko yemale ci ay sëriñ waaye war ma ji nañ ko yemale ci nañ ko yóbbu bam law ci doomu aadama yëpp tey dinaa koy wax di nga gis koo xam ne duul am murit du doon murit mën na nekk tiijaan mën na nekk xaadir laayeen wala leneen mën na bañ a nekk sax jullit waaye day bëgg sëñ tubaa te fekk bëggam gi bëgg sëñ tubaa la ko ko ci gën a dooleel daa dend ak taalibe bu am yar am teggin taalibe bu xam nu nit di jëflanteeg doomu aadama su ko defee day am jeexit bu muy bàyyi ci moom mu bëgg sëñ tubaa waaye léeg-léeg gis koo xam ne boo ne sëñ tubaa mu dumóoy fekk na da yaakaar ne dafa bañ sëñ tubaa ngir ak mbon fekk na du loolu daa dend ak taalibe bu exagéré boo xam ne day toog ak yow wan la sa sëriñ tekkiwu dara te nit koo xeebal ab sëriñ mu xeeb sa bos te bari na fi léegi da ngay toog ak kudul murit ba pare di waxee moom noo xam ne da nga koy bëgg a wan ne yow sa sëriñ sa moom tojut fen du dara loola du warma loola du teggin loola du taalibe maanaam sa sëriñ na nga ko fonke forma warmaalal sëriñu jàmbur yi tey ñàkk jàng ak ñàkk dégg sëñ tubaa moo nu ko yóbbee sëñ tubaa jàng ngeen masalik fa kullu wirdin yuridul murida li xadrati llahi walan yaida sawaun intima ila aljilaani aw intima li ahmad tijaani aw li siwauma min al aqtaabi is qadaan ala sawaabi lu tax fa kulluhum yadu almuridina ila taati rabbil arshi aysuma jalla kon Sëñ Tuubaa wane na na wuuteeg ay tarixa wërtatee jullit ñi doon benn ndax amaana ni ngeen di fonctionné woo mooy wuute waaye destination yi wuutewul destination yëpp mooy yàlla ñii dañuy dem di wasifa ñii di kuréel di jàngi ay xasida ñii di taxaw di sikkar noonu ñii di jàng alquran kenn ku nekk ak façon bi muy jëfandikoo waaye ñëpp benn jubluwaay lañ am mooy na def ba am ngërëmal yàlla kon murit du xeebe ab murit du xasse ab murit du nekk di def xeeti jëf yoo xam ne ab julli war koo jikkoo Cheikh min Bara kon mi ngi ñaax képp ku mën a doon nga mel noonu ci jikko yu rafet yooyu ak bàyyi xel daal ci ne foo toll na ngay tuub te gaaw ci jëm ci yàlla li yàlla digle tey wattandiku li yàlla borom bi subhaanahu wa tere di tuub jamono ju nekk foofu laa koy tënkee ci ci bataaxalam bi beneen bi ma daanale ko Serigne Touba rek ñu barkeelu tuuti Serigne Touba mbokk yi Serigne Touba Xaadimal Moustapha mooy jëmm joo xam ne bi yàlla sàkkee dëndëm bii adduna ca njëlbeenug adduna ba ca mujjug adduna kudul yonent bi alayhimu salaatu wasalaam ku melaan ni Serigne Touba du am ci kaw suuf sëriñ Touba kenn képp lañ xam ci koo xam ne bu ñu ko nattee ci digg mag yàlla moom la ñuy wax ne man nañ ne moo tiim sëriñ Touba muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci maqaama ak ngërëm ak dayo amul kenn ci yiw ak teraanga ak ci yéegu maqaama ak yëkkatiku daraja koo xam ne sëriñ Touba ñeena la ci yàlla amut lu tax mooy sëriñ Touba jëmm joo xam ne kenn xamul lim mën a doon kenn xamu ko bu dee melow sëñ Tuubaa ci sayr dañuy wax na doomu aadama la waaye ñun ñii ñëpp ko gëm xam nañ ne sëriñ Tuubaa li muy nekk nekk nekk doomu aadama ci sayr lamboo leneen loo xam ne dug doomu aadama dug insaaniya loola xam nañ ko moom ci boppam daana ko wax daana wax ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii liqa liqil baraaya aaya sëñ daana wax ne feeñ na ci ñi suñ borom def ci ñoom ñu am maqama amuk wilaaya am leen suñ borom xamal xam nañ ne man Ahmadou Bamba kiimaanug yàlla la kiimaanug yàlla la Sëriñ Tuubaa kiimaanug yàlla la kiimaan la ci kiimaani yàlla yi te doon moom danaan wax ne waxuma la kiimaani yàlla waaye ay kiimaan du benn du benn aay du aay rek ci suñ borom waaye ay aayaat Sëriñ Tuubaa ci kiimaani yàlla yi la bokk ni sëriñ tubaa mel ci bëgg yàlla ni sëriñ tubaa mel ci bëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam ni sëriñ tubaa mel ci wan gannaaw adduna ni sëriñ tubaa mel ci dond yonent bi aleyhi salaatu wasalaam arfan bi arfin ba ndiru ko ci wax ndiru ko ci jëf ndiru ko ci lépp ni sëriñ tubaa mel ba ni mu seeyee ci yonent ba ni nga xamee ne suukar noonu lay seeye ci ndox mu seeye ko noonu ci yonent bi ba kenn mënu ko génn ci jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen nattee Serigne Touba ci imaan amoo leen benn mbindeefam yàlla mu ngeen mën a nattale ci imaanam ak imaani Serigne Touba ci ni mu daan dundee tawhid ni mu daan dundee l'islam ci pratique ni mu ko daan dundee kenn mën ta nattale Serigne Touba ak nitu yàlla kenn ku mën a doon boo ñëwee ci wàllu tasawuf sëriñ tubaa xam ngeen ne tasawuf ju daa dox ci kaw suuf li ñuy wax xotti baax muy xarqu aada yi ko yàlla jox jaare ko ci yonent bi daana wax ne képp ku am xel xam ne man yonent bi mooma wommatal li ñuy wax xarqu aada mooy li ñuy wax ne baana li kulli man lahu saada anna nabi lii qaada xarqu aada daana wax ne ku yàlla namu ci yow ak texe kon ku texe di taxul ñuy wax ku yàlla namm ci yow dem àjjana sëñ tubaa nee na feeñ na xam nga ne man li wax xarqul aada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wamatal moo ma wamatal li ñuy wax xarqul aada sëriñ tubaa moomu doon ku jaayanteeg ak yonent bi bëggul dara dem na ba ci xolam la wax ak bëgg fa muy nekk ci xol sëñ tubaa nee na boo fa demee mënoo faa fekk dara lu dul yonent bi du lu ñuy lekk du lu ñuy naan du kër gu rafet du waruwaay duy doom du njaboot du dara loo xam ne sëñ tubaa yitti woon na ko dara lu ci mën a doon la cay ndiru saayir yëglu ko yaramam ak bëgg yonent bi la ci am moom la ne jàkk moom la gis jaayanteeg yonent ca bam ko tegagul ci ay gët la ma waxoon ne baayaatuhu bil fuaadi ayna lam tarau ayni wa aqdimahu lillahi muftarida jaayante naag yonent ci jamono joo xam ne ñaari bëtam gisagul yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mu jaayanteeg moom ci xolam di ko liggéeyal te gëm ne liggéeyal yonent bi farata la ci moom bokkut ak jaayanteeg moom ci xalimaam ci yoonam wii ngeen gis lim bind ci ay téere ngir xam ne diine ak xasida ak lim bind lépp ci wàllam mbind li wax ne baa yaxtuhu baa yaxtu xayral wara bil lawi wal qalami li waji rabbil wara di lawi wal qalami kon Sëriñ tuba mën naa bàyyi xel ci loolu li wax ne it